ثم كذبنا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 la yow ma arafa ci wa Makka ñi nga xam ne dañuy aj waaye képp ku nekk ci Sénégal suba la juróom-ñeenteeli bis moom la sa bisub arafa incha allahu kon xasidi gi mu def ko ngir taxawaayu arafa boobee kenn ku nekk bu ñëwee nga di ko ñaane mom xasida gi kon ñu am pastefu firi ko leeral maxnaam ngir mbokki bi xam lu firi te gën koo sawar a jàng waaye lu max naa bi buñ koy jàng ngir xam gim xam lu mi firi gannaaw boo waxee lii moo di ñaanug yow ma arafa yow ma arafa nag moo di juróom-ñeenteelu fan ci aw tabaski xaala sayxul xadim radiallahu taala anhu wa baxdu axoosu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa salallahu taala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xiwulaa koon bépp mbindeef ci àdduna rahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci àlaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla taala yàlla muy aji kawe ji ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turo mooy muhammad wa alihi yàlla na julli ci waa këram ñi wa sax bi ak saxaabaam wa sallama tamu dolli ko sëlmal nee na maa ngi tàmbale ci turu yàlla mi nga xam ne ki moom taxawaayu arafa yàlla mi nga xam ne ki xéewalaa tey aji yërëm ku soob ci àlaxira maa ngi dagaan ci moom moom muy aji kawe moom yàlla mu julli ci yonente bi nga xam ne mooy sunu sang turo mooy Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ñëpp ak saxaabaam yëpp te dolli ko sëlmal moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbali xasidi gi mat lool xasidi gi mu ne xamdan liman akmala yowma xarafa diina nabil mustafa wa sarafa mu ne xamdan cant naa ak cant maanaam dimax naa taqdiiru xamittu maanaam dañ ciy nattale taqdiir maanaam dañ ciy nattale baatab xamittu xamdan maanaam cant naa ak cant xamittu cant naa ak cant li man ñeel yàlla ma nga xamee ne ak akmala matal na sëkk yow ma xarafa ca bisub taxawaayu xarafa ba matal na ci diina nabi diina kan kañu soloo ko al Mustafa kada kuñ tànn wasarafa tamu dolli ko teral ne maa ngi sant suñu borom mi nga xam ne ca bisub taxawaayu xarafa de ci la matal diina yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi ñaan moom yàlla moom nga xam ne moo ci matal di diina yonent bi yàlla na doolee teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ne yonent bi bi nga xamee ne xajatul widaa di nga xam ne moom la mujjee def daanaka yàggut fi ndax ba fekk ne diina ji mat <laughs> diina ji mat na ndeysaan su fekkoon ne da ngay misaal ne ñi ngi ci weeru të ñi ngi ci weeru tëbaski boo doon misaal yonent bi mi ngi faatu ca weeru gàmm ba mu fukki fan ak ñaar ndax bis bum gane jamono muy bis bi mu judd ci la wuy ji boromam feebar bi yëpp fukki fan ak ñeent ci la diire mu tolloog lii mu taaxa kon boo doon misaal danaa yonente bi mu defee xajatul wi daan ba xut ba xut baam bu googu man nga ne 83 jours la fi am tabaarkalla daal di wuy ji boromam waaw kon gis nga ko ba defee xajatul wi daan ba xut ba saxaaba yi xut ba gu googu ba ñëpp ñëpp tiit xam na yonente bi day dem di nga yàggatut fii ñu ne bi dem na sallallahu alayhi wa sallam kon suñu borom ne wàcc aaya alquran ne al yawma akmaltu lakum diinikum kon loolu ci bisub xarafa ci la wàccee mooy aaya jooju al yawma akmaltu lakum diinikum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islaamu diinan bisub xarafa ci la ko aaya jooju dikkalee xamal ko ne ko diini ji yëpp mat na bu diini ji matee nag dëgg-dëgg ko am xel war naa xam ne kon li fi des yonent bi bari bëreetul li ko teree faatu ndax li ko fi indiwoon ji mat sëkk moo tax sëriñ bi ne dana ma cant ak cant yàlla mi nga xam ne moo matal diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bisu xarafa maa ngi koy ñaan mu doolu ko teral musaliyan mbir moom mooy aji julli ala mujaabi ci kaw ki nga xam ne mooy ku ñu wuyul dax waxoo ok dax waxoo ngay jàng moonoom ku ñu wuyi dax waxoo ñaanam ga man mooy ki nga xam ne lam yesal dañul mukk xurwa doon royteef lil asfiya ay ci tànneef yëpp sayidina kooku mooy sunu sàng bi muhammadin turo mooy muhammad habibina mooy sunu soppe safiana mooy ku ñuy ramu muqiisina mooy ku ñuy xettali tabibina mooy sunu dabtoor wal ali yàlla julli ci waa këram ñi wa sax bi ak saxaabaam bi allasina saxaaba yi mooy ñi nga xamee ne aqasoo dañuy jëfee maa la nga xamee ne xat ataa dikkee ne bii ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wana bosoo te ñu wëcc mooy sànni xayran leneen lu bokk to loole nee na maa ngi julli ci yonent bi nga xam ne mooy ki nga xam ne yàlla kat nangu no ak ñaanam yàlla nangu moom la mujjee def ñaan yam fa ñaan yëpp suñu borom nangul na ko yonent boobu mooy ki nga xamee ne du dañ mukk doon roy teef ci tànneef yi képp kuy tànneef rek ki nga ki ngay roy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xat kaanat lakum uswatun hasanatun lañ yàlla wax kon mosul dañ doon ak roy ci mboolem tànneef yi kooku mooy sunu sang turam mooy Muhammad mooy sunu soppee mooy ki ñuy ram ñun ñëpp waaye mooy ku ñuy xettali waaye mooy daktoor bu ñuy faj yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam ya nga xamee ne yonent bi lim leen indi rek digal leen ko lañ topp waaye leen yonent bi santu rek defuñ ko wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma nahaakum anhu fantuhu suñ borom nee na yonent bi lépp lu mu leen digal rek maa leen ko digal def leen ko lu leen tere rek maa leen ko tere bàyyi leen ko ba seet ci yonent bi wax na ko ci hadis lépp leen digal rek na ngeen ci def sax ba def képp seen kattan ba fu ba defee waaye lu leen tere moom na ngeen ko bàyyi ci sansa kon yi wax xayran nabusoo moo moo nekk noonu haasa wa yaa xaaliqanii yaa maaliki salaati abadan wa nusuki wa laka mahyaaya mahal mamaati wa laka irsiya anil wafaati haasa li ma tax a jóg tey jii taxawaayu arafa tey jii luy sama objectif maanaam li ma bëgg dëgg-dëgg ci bisu arafa bi haasa li ma tax a jóg wa yaa xaaliqi eh, yàlla muy aji bind sama yaa maaliki yow yàlla muy aji moom sama laka ñeel na la yow kott kott keneen bokkut salaati sama julli abadan faw wa nusuki ak samay jaamu yàlla bi subhaana rafi bii la li tax ma taalif xasidi gi damaa jóg ngir julli yi mi ci def ak jaamu yëpp jëmeewuma ko ci kenn ku dut yow yow dong laa jëmee julli ak jaamu yi bu dee salaati mooy julli yi muy def julli juróom yeeg yëpp bu dee nusuki nag mën naa doon ay gàtt yu muy rendeka saraxeek yu caajo ndax bis bu baax a saraxe la bis yëpp baax nañu saraxe waaye rawatina bis bii waaye bu ñu nusuki moom mooy ña nekk màkk lañ ko wax mooy gàtt boo xam ne dañ ko rend ngir jaamoo ko kooku la ñu wax nusuki qul inna salaati wa nusuki wa mahya wa mamatiya lillahi rabbil alamina jàng ko ba ngay wax ci mbiram yonente yàlla ibrahima alayhi salaam te moo tax ñuy tabaski moo tax kon mu ne yow yàlla muy aji bindi sama yow yàlla muy aji moom sama sama julli ak jaamu yëpp jaamu yi rend gi may def ci bisu tabaski bi ak julli yi may def yëpp julli julli tabaski gi yëpp yow dong yaa ko tax a jóg keneen taxut koo jóg yow rek ci laa ko jëmee bëgg nga nangu ko wala ka ñeenal yow kottu kottu max yaay sama dund maxal mamaati ànd koog faatu gi wala ka ñeenal yow kottu kottu irsiya sag donn añil wafaati wëlis woy faatu yi yàlla sama dund dee yaaka moom bu la neexee nga jëlee ma fi léegi sama faatu yaaka moom bu neexee nga faat ma léegi bu la neexee itam nga bàyyi ma fi ma di fi dund ba heure bu la neex ndax yow kat yaa fi donn mboolem ñu faatu ñëpp dinañ mujj faatu nga mujj donn ñëpp dégg nga walillahi miraasu samawati wal ardi wallahu bima taxmaluuna xabir la yàlla wax kon nag yàlla mooy doon mboolem ñu faatuñu dégg nga dégg nga falaka yow dongo dongo wa wajaxtu ci lay fiitale ci lay jëmale wàcc sama jëmm yaa samat yow mi nga xam ne yaay kilifa gu ñëpp jëmale ay aajo te jubloo ajjëm ci kenn kama madatu ni ki noonu lay tàllalee yët dii ngay jàng nag samak loxo ileeka jëm ci yow raajeen di aji yaakaar nga jox ma li ñaan yàlla nanga xam ne sama jëmm ji de yow rek yow dongu laa koy jox du ma ko jox keneen sama loxo bi yow rek laa koy tàllal te bu ko tàllee damay wóor ne du ma sooy danga ma jox li may yaakaar di la ko ñaan du ma sooy. wasilati bu dee sama wasila nag ileeka jëm ci yow xayrul basri may ngën ci mi def fasalliyan yàlla nga julli alayhi ca moom toolal ahsuri diirug jamono sama wasila bi dox sama diggante yow mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mbindeef yëpp moo ci gën yàlla na ko julli ci yoonante boobu diirug jamono rek fekk jamono gi am rek yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sama wasilu bi dox sama diggante ak yow daal mooy yonente bi sallallahu alayhi bi jaax yi kon nag maa ngi lay ñaan ci darjaay yonente boobu nga xam ne mooy sama wasilu bi dox sama diggante ak yow wa xaq yow mi arafa ak ci xaq yow mi arafa mooy barkeem wa xaq saimihi ak xaq aji wooram muy barkeem aji wooram li ma lay ñaan mooy xab na nga may lii ñeel ma al maxrifa li nga xamee ne moo di xam yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax lépp looy tawsul bi subhaan rafa lu muy màgg-màgg daraja yonente baa ko gën a kawe mu njëkkee barke bi yonente bi dog cee teg bi subhaan rafa ndax moom la doon bind xasidi gii ba noppi nag tawsul ci barke ki nga xam ne moom day woor xarafa wax naa leen woor bi subhaan rafa lu ama am doole la lu ama am doole la lu kawe kawe la fa yàlla sëñ Tuubaa rek na nañu bu demee bay taw tawsul ci bi subhaan fa ak ki koy woor kon ki koy woor xeebu dëgg-dëgg xam ngeen moo tax mu ne maa ngi la ñaan ci barkeb yonent bi ak ci barkeb bi subhaana fa ak ki ko woor sax barkeb maa ngi la ci ñaan te li ma lay ñaan mooy xablil maxarifa mooy nanga may ak xam yàlla dëgg-dëgg xam yàlla dañuy wax ne lu tax ñi ne xarafa ñi tuddee ko xarafa mooy sayidatuna euh, maanaam sayidatuna hawa ak sayidina adama bi leen suñ borom wàccee ci suuf bañ lekkee garab ga ba suñ borom wàcc leen ci kaw suuf bi ñuy dox ba dajee ñi ngi dajee place bu ñuy wax yow ma xarafa maanaam place bi ñu dajee moom lañ tuddee place maanaam fi ñu dajee xamante dellu xamante waat xamante ñoo xam ne ñoom ñaar ñoo nekkoon ci aljana lekk la leen yàlla tere yàlla wàcc leen ñu tuddee ko yow ma rafa bisu xamante ba dégg nga moo tax arafa jàngaliwut dara lurut buñ dekkee bis piin ci gis nga jaam yi lu ñuy mel taxawaay arafa loolu rek lay nduru la ñuy def ci màkk yëpp la muy jàng rek mooy dekki dana am ñëpp taxaw ci mel loolu rek lay jàngale mu ne kon nag ma may li nga xam ne moo di ak xam yàlla wa sidqa nag ma may ak dëggu wal yaqiina ak yaqiin wal ihsaana ak rafetal wa nuura ak leeru xol wa safa ak sellu xol wal xiyaana ak ak ak di jàkkaarloo mbiri ci sama bëti xol wal kasfa ak muriku sekere ya wal wusoolo ak yegg ga ca wa tafsira ak gis-gisu xol wal adla akuk mandu wal wafa ak matul kolre wa tanwira akuk leeral ga mu yow suñu borom dama bëgg nga may ma dëggu dëggu lu baax a baax la nit ki lépp lu am dëggoo ko may waaye dëgg moomee li ko mën a dimbale mooy li ñuy wax mu ak mu xas mu mooy ku takku xas mu nag mooy ku dogu mu ngi mel ni yow mi takkoon sa sa saw gëlëm rek jël sa bagage yëpp takk ko sa kaw gëlëm gi loolu moo tudd xasmu ci xàllonko gi mu ci añimintul gi mooy ki nga xam ne départ na dégg nga kon nit ki bu dëggoo takku am xasmu dogu fu di mën a faa yegg ci borom. fu mu bëgg a dem ci nit itam man na faa dem waaw kooku kooku la ñuy wax dëggu dégg nga mu ne kon dëggu nag lu jafe la daanaka man ngeen ne martabaam yonent rek moo ko féete kaw martaba yëpp moo ci féete kaw fa ulaayka maa lazina an'ama Allaahu alayhim mina nabiyyiina si siddiqiina gis nga soxadaa u yi lu muy rëy rëy daraja daraja maanaam maqaamam siddiq siddiqoon yi moo leen ëpp daraja moo leen gën a kawe daraja mu ne kon nanga may ak dëggu ak yëqin yëqin mooy am yëqin ci li ngay def sa diggante sa borom doo am lenn looy sikki sàkk doo am loo lenn looy dénge-dénge doo am looy gëlëm doo am lenn looy xalaat kooku mooy yëqin dégg bu dee dekki da nga koy gëm te gisagoo ko lu fàddu lépp te yàlla diglu itam ci aljana da koy gëm te gisagoo ko kooku mooy yëqiin al ihsaan mooy tasawuf moom man nga ne mooy lii rafetal jaamu yàlla yi bi nga amee iman islaam li koy rafetal maanaam mooy jaamu yàlla gi gën a rafet mooy ihsaan mooy def te yàlla tax bi jaamu yàlla yëpp dajee moom moo nekk seen kaw moo leen di rafetal moo leen di baaxal waaye mu ne na may leeru xol ak sellu xol xol bu leer xol bu leeree sell day dem ba suñu borom di ko muril ay secret moo tax mu teg ci xeyaan xeyaan mooy bëti xol mooy caar mooy ko xam ne xolam day gis day jàkkaarloo léegi dootuñ ko defal nangam waaye day jàkkaarloo mbir lu mu bëgg xam rek day jàkkaarloo moom loolu nag la may muy nuuru ak safaa ak sidduqu ak yiqin ak ihsaan mu ne nag ma may mooy ñi muril la mbir yi nga xam ne dafa nëbbutoon waaye dañ la ko muril dafa am lu ñuy wax maqaama al mukasafa am lu ñuy wax al musahada maanaam ñu muril la lu mel ni safara nga di ko gis lu mel ni aljana nga di ko gis am na ñoo xam ne suñu borom may na leen ci kattanam ñi man di gis safara te bis ba teewagut ñi man di gis aljana te bis ba teewagut dégg nga mu ngi noonu waaye loolu yëpp day yokk seen pas-pas rek waaye mu ne na may ak yegg ci yow yàlla ak gis-gisu xol may ma ak màndu ndax ci melukaanu yàlla yi la inna allaha yaamuru bil adli Euh, ki mandu rek mooy ki jeng mooy koo xam ne dafa jeng moo xam góor ga yore ay soxna la moo xam ko yore këram la moo xam sëriñ ba moo xam mandu daal ci ñëpp lañ ko bëgg ak matal ko léegi mooy loog signé doomu aadama fexe ko waaye nag rawatina sa diggante sa borom ci jaam ko war a jaam nga matal ko waaye nag tanwiir mooy leeral waaw lépp lu lëndëm rek nga leeral ko mun na nga may lii asiduqu yaqin insan nuuru safa a xeyaan kasfu wusul tafsir al adlu al wafaau a tanwir muy fukk ak benn léegi nag muy indi yoo xam ne man nga ne seeni safaan la rek mu ne wana ji ni yàlla na mu musal min jaxlatin ci ak réer muy ñàkk xam wasakki ak sikk-sakk wa riddatin ak murtat wa firiyatin ak sos wa if wal ifki ak duut wa min tasab subin ak dengi-dengi wa min tasanduqi ak sindiix mooy ko xam ne day nëbbu kéeféer di feeñal lislaam wa min tamasduqin ak di wax ba noppi te doo seet wax ji mooy doo wutandiku la ngay wax da ngay gërëb di wax wamin ko ak génn topp mu ne yàlla nag ma musal ci réer réer moom boo ko déggee mooy ñàkk xam ki ñàkk xam mooy ku ñuy tuddee jeex la xalaa ku laal nit ki moom lu mu réeree rek kooku jeexlu la ci waaye buñ ne jeexlu dëgg-dëgg mooy ku xamul dara moom sikk sàkk dégg nga sikk sàkk ku amul yëqin mooy faral di sikk sikk sàkk maanaam boo amul yëqin rek da ngay faral di sikk sàkk nit yàlla yi ñoom sikki sàkk day dàq ko ci seenu xol li ñuy wax sikki sàkk mu ne nag ma musal ci sikki sàkk ak murtat mooy dugg ci diine ji bam neex la nga génne ko ku ko def sa lépp yàqu na sa wa man yartadid minkum an diini fa yamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika habitat a'maaluhum boo ci deewee moom safara nga jëm koo xam ne dugg na ci lislaam di jaamu yàlla dàqoon na jaamu yàlla ñi toog toro ñu ne génn ci lislaam alaa kulli haal boo tubaatu dugg ci lislaam kooku boo deexee moom sa jëf ya nga defoon ci lislaam yëpp yàqu na firiya nag mooy dóor mooy sos mooy kat ci ay fen kooku lañu ñu wax firiya if ki nag mooy duut mu lu mel ni ngay duuroon yàlla naan dafa am doom dafa am soxna dafa am mag dafa am fu dëkk dafa am barab bu mu nekk kooku mooy if ka mooy li gën a bon in haasa ila ifkun muxtaram kon lu bon bon la tasab sub moom ngeen di tuddee dengi dengi maa max naa nit ki lépp lu lu muy def rek di ci dengi dengi kooku tasab sub lañ koy tuddee maanaam nga xam ne da koy def rek di déngi déngi nii waaye du jàpp lu fu wóor kooku mooy tasabsul lool nag jukkoo naafiq lañ ko xamee musab si bii na bayna salika la ilaha walaay wala ilaha walaay mooy koo xam ne daal mënoo ko xamee ci julit ñi du ci nekk mukk mënoo ko xamee ci yéefir ñi day day jàllantu diggante boobu rek mooy ki nga xam ne dafay fiiñal maanaam ci xolam ci xolam maanaam ci jëmmam dafay fiiñal ne moom julit la gëm na yàlla waaye fekk xol bi moom mi ngi ci nëbb ak kéefir baaxul tamasdux mooy koo xam ne day wax te du wëttandiku la muy wax maanaam day wax rek di dem tafasux mooy ku génn topp mooy koo xam ne li ko yàlla digal dafa génn topp mu ngi mel ni gerte gerte kalan bi nga tikk ba noppi xolli ko kemb bi gis nga ni mu génnee loolu la ñuy wax maanaam génn topp moom la yàlla waxoon ne iblis ci jinni la bokkoon waaye dafa génn topp ndax dañ koo digal na ko su jootal aadama mu bañ loolu mooy génn topp kaana minal jinni fa fa fasaxa xana buy noonu mu ne nag wa juróoni yàlla nag ma ñor di li ku limaa jëmee ma ci lépp la nga xamee ne yuslihu nii dana ma yëwanal wa ko fa yàlla nag ma fegal an ku limaa walis lépp loo xamee ne yuslihu nii dana ma yàq li nga ñaan gu matal la mu yàlla lépp lu may defar rek ñor di ma ma jëm ca lépp lu may yàq rek fegal ma ko <laughs> aka noppale lu may defee rek jëmee ma ca lu may yàq rek fegal ma ko wa axri nii te yàlla nag ma xir bi tallabil fadaili ci may sàkku ngëneel yi képp la sullani yàlla nag ma rinki min jumlati rasaili ma bàyyi ko ci mbooleem rasaili muy jukku yu ñaaw yi yàlla dama bëgga lu ñuy tuddee fadaili muy ngëneel yi nag ma xiir waxtu wu ne ma di ko sàkku heure bu ni rek na may xiirtal may sàkku ngëneel yi waaye lu ñuy tuddee rasaili nag ma rinki ba ma set ci witti ba duma ko jublu ma jublu ta nga xiir ma may sàkku ngëneel yi fu ma toll wansur yàlla na nga dimbale ñi ñi nga xam ne dañuy wuyee santaane yàlla yi yaa maxin yow yàlla muy aji dimbale ji na nga leen dimbale xala xawaa ijihimoo ci seeni xaajo yi fii kullihin ci bépp jamono yàlla yow mi xam ne ku am dimbal yaa ko dimbale du am njàmbaaram yàlla na nga dimbale mboolem julit ñi seeni xaajo yëpp di faju ci saasi na ngay faj seen xaajo ci saay rek baatin ci bépp jamono wa ballixan yàlla na nga jotal li baytika ci sa kaaba ga alxaraami ga dëgguñ xormaal man ña nga xam ne xasadoo dañuy yéene alxaji xaj maa salaami ànd ko jàmm nee ñi nga xam ne dañoo am yéene aj te mënuñee dem xëy na amuñ leen yobbu wala wéruñ yaram amuñ wér yaram waaye am nañ yéene ba ndax ñi ngi dundal bis bi taxawaay Arafa ñi ngi koy woon ñi ngi koy dundal ci tudd yàlla lépp ñooñu rek yàlla dañ leen bindal payoorub ko aj màkk donte demuñu màkk waaye tam boo ci ñaan yàlla ci saari bis yi yàlla mën na laa xëyula may la dund ak tal ak fekkee ba nga am kàttanu dem màkk ngir dundal gi ngay dundal weer wi rek yàlla mën na la ko defal dégg nga am na ñoo xam ne seeni ñaan yàlla dana ko yeggali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luñ ñaan rek ci bis bi yàlla da koy wan yonent bi kaaba ga yàlla da koy jotal kaaba ga donte demuñ fa moo tax mu ne yàlla na nga jotal sa kaaba gi nga xam ne mooy guñu xormal gi ñi nga xam ne dañoo yéene xat seen yéene na yegg ci kaaba ga donte demuñ waaye nañ ànd koog jàmm am jàmm ndax jàmm guñ ko amee rek xëy na mën nañu dem ba dem mag dem ci kaaba ga yàlla na ko yàlla defal te defal wajaal yàlla na nga def li ahli sarxe ñeel ñuñ bay wa tijaara ak commerce ihanatan ak ndimbal aw yoxtawoo ba danuñu làq bu saara mbégte mu ne ñi nga xam ne ay baykat lañ wala ñi nga xam ne ay commerçant lañ na leen defal ndimbal baykat moom lan mooy ndimbalam moo commerçant mooy ñi fexe ba tonofu maanaam lañ bayoon ñi mën koo jëriñoo bu dee commerçant bi maanaam bénéfice bi te itam jaay mi di gaaw loolu mooy seen mbégte ñoom kon loolu mooy aw yaxtawoo bu saara maanaam baykat yi ak commerçant yëpp ñiy jaay ak ñay bay ci tool yëpp na leen may ndimbal ndimbal li mooy la ñuy bay nañ ko jëriñoo mu ngi noonu wokkun yàlla na nga nekkal likuli saalikin ñeel bépp aji soobu jëm ci yow yàlla muri di tey aji namm sa jëmm ji na ko nekkal aw nan ci sa ndimbal ala seytaane ci kaw saytaane al muri di saytaane may aji fittirlu gis nga bi mu yegsee fii moom lan la ko ñaanal bokkut ak commerçant ya ak baykat ya mu ne ki nga xam ne saalik la mooy ku sóobu ci yoon ta na ma jëm ci yàlla nag koy saalikin murit mooy ku na ma jëm ci yàlla loolu mooy murit murit day doon ak saalik doon murit waaw maam ba nga sóobu ba noppi da dafa am loo namm ci sóobu ga mu nga mel ni nga dugg ci oto bi dugg nga léegi rek am na foo jëm di nekkoon da ngaa dugg ci bi déedéet am na foo jëm ndakaaru nga jëm Kaolack nga jëm feneen nga jëm nangam dëkk ba nga jëm boo ko doon misaal yoonu yàlla dëkk boobu la yàlla nekk nga mu ne nag ki nga xam ne saalik la doon murid na nga ko defal ndimbal ci seytaane mi nga xam ne dafa féetéerlu xoolal fii ni mu ndax xam ne ne saalik bi ci soobu ci yoon yàlla li ko mën a yàqal li ci gën a garaaw mooy seytaane ndax saytaane moom du soobu ci yoon yàlla léegi nag ki soobu ci yoon yàlla saytaane moo ko yàqal moo koy gàllankoor ndax bëri na ku dem ba defee ne yegg na ci yàlla sax saytaane yàqal ko wala ku dem ba yegg ci yàlla sax saytaane yàqal ko yàlla mbiram moo mel noonu mën ngaa ba yegg ci yàlla du tee nga wàccaat ba gën a def ba gën a kawe ñëpp nga mën a def ba gën a suufe ñëpp <laughs> gis nga yàlla yàlla nekk na boo yeggee ci moom rek yegg nga ci moom dootoo mos a wàccati loolu mooy mbiri yàlla bokkul yàlla nga nekk yàlla nga nekk mu xëy nan di aji dimbale li sa wi taalumi ñeel borom xam lu ñi aw yaxtawoo ba daan ñu laq ala xolooma xeeti xam yi ñuy sàkku yëpp yaasal këram yow muy borom tedd nga xoolal fii moom lu mu ñaanal mooy ñi sàkku xam-xam mu ne na nga leen dimbale ba xeeti xam-xam yi ñuy sàkku ci seen majalis ya seen jàngukaay yëpp si daar yëpp fu ñu ko mën di jàngee xeeti xam-xam yi dañ ko am ndax kii sàkku xam-xam nag dëgg dëgg daa bëgg xam-xam yi géeju ci lool kon bokk nag ki nekk baykat wala commerçant bi moom tonuxu lay bëgg waaye bu dee kii sàkku xam-xam am xam lay bëgg waaye gis nga bi mu leen ñaanale ñoom ñi dane waxut naka womat jami xawum ñoom ñëpp moo xam baykat yaag commerçant kat yaag saalik baag murit baag jàng ñe jàng ca daara jaag ñoom ñëpp daa bu ñàkk ñetti yi muy aqsaamu diina salaasatun al imaanu islam ihsan moo tax ne waxul yàlla na nga womat jamihahum ñoom ñëpp ilal imaan yi jëmee leen ci imaan gëm yàlla su ma lil islaam yi topp islaam muy woyee santaani yàlla yi walil insaan yi topp rafetal mooy def te yàlla tax mooy tasuuf mu ne ñoom ñëpp ñoom daal buñ génn ñett yi nañ tënku ci imaan gu dëgër muy gëm yàlla goo xam ne dara du ko rax ak islam gu dara du rax luru sant wéyee rek santaani suñu borom yi ak insaan gu dara du rax muy lépp lu ñuy def rek dañ koy def ngir ne seen borom mi ngi leen di gis xam gi nga xam ne seen borom mi leen gis nag moo tax nag ñiy jomba def loo xamee ne yàlla dana leen ca yàdda mu commencé nag baatab yàllaahu yi mu ne ko yàllaahu yow yàlla woo naa la askuruka maa ngi lay tudd bi duxaa yi di ko jaaree ci anamug ñaan kon faskur ni ya faskur ni yàlla nag ma tudd yaa mawlaa yow sama kilifa bii la ataa ci li nga xam ne moo di ay may dégg nga maanaam ànd koog defal ma ay may bi la ataa ànd kook defal ma ay may loolu mooy li yàlla wax ne faskuruni askurkum waskuruni wala takfurun te loolu yow ma arafa bisub tudd yàlla la weer yëpp sax weeru tudd yàlla la mu yow suñu borom maa ngi lay tudd di ko jaaree ci anamuk ñaan kon nag dama bëgg nga tudd ma tuddug yàlla mooy dafa bàyyi xel nit xam nga yàlla du fàtte waaye am na ñoo xam ne yàlla da leen di fàtte fàttelu ngir ñoom it fàtte fàttelu yàlla xam nga doomu aadama dañuy ne du fàtte yàlla déedéet lu mot bu dem ba fàtte yàlla lépp moom kay da nga yow yaay fàtte yàlla yow maam yaa koy fàtt fàttalu waaye amaa sa xel mu ngi dem ci yàlla dégg nga da koo bañ a jaamu ngir sant ko moo tax maa ngi lay ñaan di ko jaaree ci di la tudd ci waxtu ne kon nag nag may bàyyi xel mooy di ma tudd yow sama kilifa di ma jox li nga xam ne moo di ay may yàlla yow yàlla askuruka maa ngi lay tudd bi sanaa yi ànd ko di la tagg faskur faskur ni kon yàlla nag ma tudd yaa mawlaa yow samay kilifa bil jasaay ànd koog pay yow sunu borom maa ngi lay tudd ànd koog di la tagg fu ma mën di toll di wax sa melokaan yi rafet yi kooku mooy sanaaw mooy nit ki su fekkee da nga koy tagg di ko wax yi nga xam ne dëgg la ci moom sanaaw lay tudd moo tax yàlla ñi koy def sanaaw mooy baatab sanaaw di ko kañ di wax wax yoo xam ne yépp dafa yell ci jëm mu ne kon yàlla nang ma tudd di ma di ma bàyyi xel ci waxtu ne yow sama kilifa ànd koog di ma pay yàllaahu yow sunu borom askuruka maa ngi lay tudd bi su aali ànd koog di la laaj mooy sama soxla faskur ni kon nawit kon nag yow it yàlla nag ma tudd yaa mawlaay yow sama kilifa bi nawaal ci ay may yàlla nanga xam ne kat maa ngi lay tudd waxtu ne di la wax sama soxla dégg nga kon nag man it damaa bëgg yow mi sama kilifa nang may tudd di ma bàyyi xel ci ay may maanaam di ma defal ay may yaa bi yow sama borom addu ko maa ngi lay ñaan naa fii ma nekk bi taw ba ànd ko di di tuub di dellu ci yow fokkun yàlla nga nekk mu jiiba nii di aji sama ñaan bi max wil xaw ba ci faral ma sama bàkkaar yi mu ne yow sunu borom maa ngi lay ñaan fii ma nekk di taalif xasidi gi ci bisu xarafa maa ngi tuub di dellu ci yow bëgg nga nangul ma tuub gi kon nag nanga ma nangul sama ñaan te moo di li may tuub mooy bàkkaar yi ma def kon nag na nga far bàkkaar yi ba mooy sanbu yaa rabbi yow suñu borom adduna ko maa ngi lay ñaan bi xëyri xaf la ci lur ak càggante mooy du ñàkk tudd yàlla mukk fekkoon yàlla nga nekk mu jiiba nii doon kuy wuy sama ñaan bi xëyri max la ci lur ak yéexee yow sama borom maa ngi lay ñaan ci lur ak càggante mooy waxtu wu ni dama lay ñaan du ma tàyyi mukk donte gisuma sax loo ma may waaye damay dëkk rek la ñaan kon nag yàlla na ma nagul sama ñaan toujours ak yéexee bu ne max la mooy taaqur mooy nit ki ñaan ba noppi suñu borom dégg na ko de gis na ko de dégg nga waaye ñaan moom xale kulli ku ko def rek suñu borom nangu na ko léeg-léeg bi ñaan suñu borom suñu borom defal ko ko leneen mu ñaan alal suñu borom defal ko ko wér-gu-yaram mu ñaan wér suñu borom may ko alal benn bu ci nekk yàlla moo xam lam ca namu moo tax mu ne yàlla nag ma nangul sama ñaan bi xëy na ma xala ciuru ak yéexe mooy ñaan gi daal nag ma ko nangul ca sansa bu bu mu doon loo xam ne neen lay nekk. yaa rabbi yow borom addu xoo ko danaa la ñaan ma xam na daama ànd ko ko rëccu fekkoon yàlla na nga nekk mu jiiba nii di aj nangu sama ñaan ma maal karaama ànd koog ay xar baax dafa ma ay xar baax. sunu borom maa ngi lay ñaan di rëccu lépp lu mu mos a def rek ne dootuma cee dello kon nag nang ma nangul sama ñaan yi ma lay ñaan ànd ko ma ay xar baax kon mu ngi noonu ñetti bayit yooyu la wax yaa bi